non vraiment du ko du ko du ko dimbali parce que dama defe ne am politique politique addition la du du du du soustraction du du neen donc dama defe ne toujours rek koo xamante ni dañu ñëw pour euh, nga soxla mbooloo soxla ay nit soxla ñoo xam koo xamante ne dafa ñëw bénévolement jël ay responsabilités ñëw engagé wu pour ne damay jàppale président de la République avec ses propres moyens dama defe ne kooku ànd ak moom warul warul difficile donc boo xoolee même le président du conseil départemental Souleymane Ndoye aussi def naa tous les moyens pour que gis ko fu nekk jaar naa fa ci ay ay ay collaborateurs am ay proches moom il me connaît très bien pour am ci moom accès aussi c'est pas facile. donc y a que le ministre Ismaïla Madior Fall que je salue d'abord mu nekk fierté ci ñun au département de Rufisque nga xam ne vraiment recevoir na ma discuter nañu waxtaan nañu il m'a tendu la main rafetlu aussi suma taxawaay le maire Albendooy père Omer Seck. donc bu ma nekkee fi di lim du ñu fi jóg am na ñu ci bari ñoo xam ne wax dëgg yàlla toog naa ak ñoom mais les principaux concernés yi nga xamante ne nii ñoom ñoo ŋànk euh, mbir mi muy le président du conseil départemental et le ministre euh, d'État Oumar Gueye ñoo xaw a am tuuti difficulté peut-être que seen seen seen seen emploi du temps mbaa yu demee noonu mais aussi man dama gis daal war nañu bàyyi jël tuuti temps di bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo ñëw pour jàppale le président de la République waaw soo ma ko permettre aussi même même même même njiitu réew mi le président de la république mu ngi nii bind naa ko bind naa ko amul réponse je peux dire Abdourahmane Ndiaye conseil politique bu président de la république bind naa ko bind naa Abdoulaye Ndour même le ministre Cheikh Anta chargé du PS e, moom laa jëkk bind d'ailleurs parce que man bi ma bi ma bi ma bi ma songee mouvement bi rek dama attaqué jël sama propre moyen jàppoon date le 10 février 2017 2018 du mois pour def suma lancement si la ñu ma interrompre pour ne ma donc da ngay dem rejoindre la plateforme de l' émergence donc bi ma demee def ay démarches dem naa ba ci moom fekk na ma confectionné samay t-shirt def lépp dem ba ci moom lettre bi ma ko bundee mu ngi nii en vain il m'a jamais reçu te dama defe ne wax dëgg yàlla su fekkente ne kuy jàppale président rek la tous les mouvements nga war a recevoir peut moom moo xam li tax recevoir moom moo ko xam mais man lu ma xam rek def naa ko ay ay ay ay ay ces ces al ces ces ces ces ces conseils fu nekk jaar naa fa pour am accès ba bind lettre déposer ko mais. donc mouvement bi c'est un mouvement national d'ailleurs partout ah partout nit ñaa ngi ñëw di adhéré ci mouvement bi ñu ngi ñuy ñu ngi ñuy woo de partout donc euh, c'est un mouvement national. liggéey bi mu ngi continuer mu ngi continuer donc ñi may lim ñi dafa nekk ñoo xam ne peut-être ñoom la ñu amagul accès si ñoom ñi si des ñu ngi ñu ngi ñu ngi wootee ñu ngi ñu ngi bind donc boo demee fu mel ni département de Mbour am nañu fa ay militants am nañu fa ay membre ñu ngi ñuy woo ñu ngi d'ailleurs ñu ngi discuter ak ñoom ba démb rek ak deux jours yëpp maa ngi discuter ak seen responsable bi nekk foofu nga dem fu mel ni région de Kaolack aussi ñu ngi fay am ay ay ay ay ay ay am fa ay ay ay foofu plus de 3000 membres ñu ngi ñu ngi ko am nañ ko foofu o à la de Thiès aussi boo demee foofu. am nañu fa aussi ay membres yoo xam ne wax dëgg yàlla macha allah bëgguma nekk di lim di di wax exactement fi ñu toll parce que liggéey bi moo wax moo liggéey politique la moo laaj loolu donc mais ñu ngi def le maximum di élargir suñuy base ñu ngi ci liggéey bi donc jàpp naa ne sax bu ñu jógee ci lii dañu war a def benn tournée d'une semaine ou bien de deux semaines boo xamante ne ni pour seeti ñi nga xam ne ñu ngi ñuy woote mosuñu ñu gis te vraiment ñu ngi sonn pour que ñoom ñu ñëw ci ñoom pour que ñu adhéré wu ci mouvement bi. bon suma dernier mot daal maa ngi koy euh, posé ci à ce que fi nga xam ne mooy suma localité mooy le département de Rufisque que que vraiment daal pour ñu jàppale président ci liggéey bi mu yomb ci ci moom mooy ñu boole suñuy force yéenante jàmm àndal liggéey parce que du du ñoom du du nekk tolluñu ci ci ci ci ay local tolluñu ci dara c'est le président. de la république moo soxla te président dama jàpp ne bu soxlaa ñëpp dañu war a bàyyi seen soxla ñëw jàppale ko parce ku ci nekk ndombal tànk ba nga yor moo la ko jox donc ñu góorgóorlu ànd unir suñuy force nekk benn su ko defee yombal victoire président de la république su département de Rufisque parce que jàpp naa ne foofu amul amul amul amul vraiment adversaire politique amul amul amul euh, opposition parce que boo xoolee ña fa nekk ñëpp ci département bi apparemment ñëpp ñu ngi ci APR boo demee fu mel ni Mbambilor nga dem fu mel ni partout dans le département daal wax dëgg yàlla ñëpp ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ànd ak président donc li ci des daal mooy ñu boole suñuy force te yombalal ñi nga xam ne ñooy nekk yor ay mouvement yor ay association bëgg accéder ci ci ci jàppale ci ci liggéey bi pour jàppale président de la république te ñi lañ ko mën a yombal mooy ñi fa yàlla teg loolu lan laa amoon ci li wax di wax aussi tamit euh, suñu ñi staff bi ma àndal di liggéey di leen massawu coono parce que liggéey bi metti na yombul seen propre moyen la ñuy demee te mouvement bi doy sëg di judd amul les moyens qu'il le ñu ngi jéem ñu ngi élargir les bases ñu ngi ci liggéey bi te ñoom toujours rek ñu ngi jël seen temps jël seen moyen di ci di ci di ci di ci di ci def di leen baalu ak di leen masawu coono di wax euh, gars yi ne liggéey bi du yomb ñu ngi ci incha allahu rabbi à bientôt